tey bii 8 mars ku ne xam na ne bisu jigéen ñi la bisu feetu jigéen ñi lañu war leen cee delloo njikkal war leen cee sargal ñu bëgg leen a xamal ni le 8 mars dungu mbaay rek ak tëgg ak fecc 8 mars histoire la boo nga xamante ni nii ñun jigéen ñi Sénégal dañ cee am histoire ndax suñu maam yi nga xam ne ñoo nekkoon deer bés dafa jotoon ñu taal seen bopp ngir bañ bañ googu ñu doon bañ nag ñun bañ googu ba léegi moo war a nekk si ñun moo tax bis boobu heure bu jotee rek dañu bëgg di ko féete di sensibiliser jigéen ñi di leen waxtaan ak ñoom pour ñu gën a xam seen bopp gën a am seen dignité gën a autonome ndax autonome mooy tax nga gën a xam foo teg sa tànk bis bi nag suñu maire daf ñu jàppale bi mu ñëwee yàggul deux ans la am mais année bi mu njëkk a falu dañu féete leen ndax mosuma gis 8 mars ci commune Taïba Ndiaye ren la bi bi ñëwee ak léegi ñu ànd ak moom di ko liggéey mu dépensé ci xaalisam jox ñu financement bu doy pour ñu def suñu 8 mars féete jigéen ñi ba jigéen ñi yëpp nga xam ni kontaan nañu ñun suñu jafe-jafe fii formation ak wàllu formalisation ak wàllu financement monsieur le maire def na ci lim ci man def na ci kéemtalaay kàttanam li ci des nag mooy ay unité de transformation la ñuy soxla ak ay fra ndax am nañ ay formation ndax ONG yi partenaires yi nga xam ne bi moo ñuy may ñu mën koo jaay ñu mën a jaay suñu produit feneen fra bi moo ñuy may ñu mën a dem ci supermarché moo ñuy may tamit ñu mën a dem ci foire yi mag yi yóbbu suñu produit mais comme amuñu franc dañuy obligé jaay ko suñu biir fi ñu ci toll monsieur le maire def na si ay jéego yu mag ndax formalisation yi daanaka mate na financement bi jox nañu ko macha allah ñu ngi koy déroulé di ko tourné normal jigéen ñaa ngi koy jël euh, unité yi tamit tam am nañu tàmbali am nañu nekk en am na ci yoo xam ne doyul bu ñu sañoon mu yokk ñu ngi ñu ngi kii yi nga xam ne partenaires yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu zone bi entreprise nga xam ne ñoo nekk ci suñu zone bi ñu gën a jàppale jigéen ñi gën a veillé jigéen ñi ndax jigéen ñi boo leen jàppalee rek jàppale nga réew jigéen dañ koo war a sargal war koo jox ay teraanga war koo jàppale ci lépp loo nga xamante ni ci wàllu liggéeyam la waaye jigéen kenn wuur ko mettal may mën a nduur fay loolu ñu ko def metti nañu naqar nañ ko ñun jigéenu Sénégal gépp fu jigéen nekk rek naqar na jigéen ju liggéey ba wàcc bàyyi sa njaboot tëj sa kër ndax bëgg loo am di fay ay centaine de ñu jekki ba yàgg nga liggéey ba wàcc ñu kar la agressé la loolu métti nañu ñun ñëpp te ñu ngi lancé appel tamit gouvernement bi ak justice def liggéeyam ndax réew mi tollootul fu jigéen di fu ñu agressé jigéen tollootul fu góor di jàkkaarloo jigéen di ko néewal doole. Euh, Penda Sarr présidente commission sociale au niveau de la mairie de Taïba Ndiaye. Voilà, pourquoi cette journée? Pourquoi cette journée? Ah, journée de la femme, journée des femmes. c'est pourquoi nous organisons cette cérémonie grandiose-là. C'est l'occasion également de revenir un peu sur ce que vous faites. Vous faites quoi, vous faites quoi comme travail Bon, au niveau de Pébendia, les femmes sont vraiment des travailleuses. Nous travaillons sur les transformations privées, et légumes, pâtisseries. transformations privées, et légumes, pâtisseries. Euh, euh, on travaille tout là, dans ce village-là. de financement. D'ailleurs, le maire nous a donné des financements, mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin de beaucoup de financements pour aider les femmes et les unités de transformation. Vous avez des formations également Oui, oui, nous avons des formations, mais ça ne suffit pas, parce que nous avons besoin beaucoup de formations. Euh, pour combattre euh, le, manque de travail au niveau de la commune parce que la majeure partie des femmes ne sont pas scolarisées. Donc il faut beaucoup de formation pour que les femmes soient autonomes pour, mieux aider leurs enfants. Voilà, quel est le rôle de la mairie dans ce Bon, la mairie a fait des efforts, beaucoup d'efforts, surtout le maire Assadiaï que nous remercions de passage et a donné des formations euh, dans, la commune de Taïba. Il nous a donné une formation de de 12 millions. Il nous a initié des formations et des formalisations avez également besoin des unités de transformation Si, si nous besoin des unités de transformation pour mieux travailler. Des chambres de conservation également Oui, oui, et les chambres de conservation parce que nous produisons beaucoup de, fruits et de légumes au niveau de la commune de Taïwan. L'actualité, c'est l'agression de Maïmouna en tant que femme. je voudrais la femme. Quelle est la position de la femme de Taïwan par rapport à cette agression C'est un acte très, très, très, c'est un acte que nous déployons parce que c'est pas bon, mm, surtout au mois de mars, qu'on agresse une femme battante comme Maïmouna que nous condamnons fermement, nous les femmes de la commune de Taïbadia et tout le Sénégal en particulier. Oui, oui, nous condamnons fermement cet acte barbare. Qu'est-ce que vous demandez à l'État sénégalais par rapport à cette agression ah, de, mieux sécuriser les populations, euh, parce qu'il y a beaucoup d'agressions pour le moment, c'est pas bon pour, pour, la, pour la population du Sénégal, surtout les femmes il faut également clarifier la situation. on a une enquête pour trouver les oui oui il faut qu'on l'État prenne des dispositions parce que ça on ne peut pas tolérer que les femmes subissent des agressions de ci de cela c'est pas c'est très mauvais pour la population. il faut oui il faut qu'on fasse l'enquête. donc monsieur le sous-préfet.